الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان bokki kuy ñi fi teew bokki tali bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci weeru tedd wi mm-hmm. di am mbégte lool ci jataay bi ni ko sëriñ bi jataay woon nañ ko daaw yàlla fekkee la ko ren yal yàlla dolli tawfiq ak yiw ak seen xarit jamono bi li may wax ni suñu borom dafa séddale lépp nahnu qasamnaa baynakum ma'iishatakum baynahum ma'iishatakum fil hayaati dunya dafa wax léegi seen dund dama leen ko séddale ci dund àdduna waaye noonu mu séddalee ak dund nag séddalee ko ku ne mu jox la juróom-ñaari cër nga soxlawul noonu la ñu seddee kilifa ba jël ñu ko jëkkaani fenn waaw jamono ba ne may wax ne boo leen ko seen muy dox ñaari mbir lay sàkk loolu la suñu doon def ci àdduna muy kuy dox rek ñaari mbir ba tax a jóg wut ak mucc ak wut xéwal ci ak xéewal ñooy ñaari baat yi nga xam ne koo seen muy dem benn ñaari yooyu tax a jóg day wuti xéewal wala muy sàkku mucc loolu la suñu borom dogal te doomu aadama it ci biir wut boobu muy wut wut a ak di wut xéewal it borom dafa def mu umpule ak umpule la yàlla def ci moom hmm. kullukum daalun la yàlla te wax man hadaytu loolu hadisul xudsi la boo xam ni suñu borom moo ko wax jaarale ko ci laam yonent bi mu wax ni yéen samay jaam yéen ñëpp réer ba mu des ki ma génn di teg ko caw yoon kullukum daalun illaa man hadaytu fastahduni ahdikum kon sàkku leen ak gindiku ci man ma gindi leen bi loolu amee bi ñëpp réeree doomu aadama yëpp umpule duñ xam fu ñuy jaar suñu borom ci taw fii xam ak bu baaxam ci la yónnee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu gindi nit ci seen réer googu ñu nekk mu xamal nu ni it ñu ne ku ko ci topp da gindi ko wa in tuti'uhu tahtadu la mu andil ñu war caa jaar ngir gindi ko it muy alquran Serigne Touba ci ni mu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wane alquran ci jàppe mi ngi mel ni seen maxa di jàppe ci loxoy ka koy womat loolu mooy maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil qaa'idil basir mu jàppe noonu ci alxuraan kon la dig dindiku ci noonu ñuy tam mooy ñu defandoo ci moom jàppe ci moom mel ni sirmaxa ci loxoy ka bi womat moo tax tey jii xaj na fàttali rek lay doon sax am njàngale moo xam nañ ko jàngati ko jàngati waaye am ak fàttali lay doon wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin tomb li li ci gàttal moom la ñuy tuddee mooy teggin yoonu di jàngale moom la ñuy tuddee ak taalibe xeet woowu yi ci lañ bëgg a fàttali leen te tey jii allah mu mel sëriñ bi teggin yi mu jàngale ci biir yoonu. mooy te ñu di ko ak taalibe daf koo tënk ci ñaari xeet ñaari xaaj muy yi ngay àndeek sa borom ak teggin yi ngay àndeek nit ñi waaye téere boobu mu taalif su dee ko naa ñu xadaayil xaaj yi lépp lu ñu soxla ci ay teggin daf ko dajale ci biir ndax ñetti tënk yi mu ci tënk muy teggin yi nit ki àndee ak borom ak lu aju ci lu jëm ci yàlla ak teggin yi muy àndee société bi muy dund ak teggin yi nga xam ni dana ko àndee nit ki ci bu juyoo moom ay gis-gis ci ne dafa am aw waaye nag ba dañoo dugg ci teggin yi ak solo sim am ci dund ab murit laaj na ñu xam ne lan mooy murit bu noppi murit mooy ab jullit bu dëggu bu boolee liimaan ak lislaam ak lihsaan ngërëmu yàlla képp ñor ko kooku la ñuy tuddee amour kon bu ñuy wax dañuy wax ne teggin ab yar ak taalibe solo si mu am ci dundu ab julit dundu ab julit mën nañoo wax ne dundu ab julit rawatina ab murit ndax murit du ku dul julit bi nga xam ne dara ñëwagul mu ngërëmu yàlla te suñu borom bi mu wax mooy wa ridwaanu minallaahi akbar ngërëmul yàlla mooy li gën a lépp kon bu nu Sëriñ Tuubaa joxañee ne ñun wut leen loola seen na la mu joxañ ko waaw te dafa wax ne isil muriidu laa mu doon loo xam ni it day aw nii woo xam ni jamono bi mu toll nii bu ñu nee murit dana am kuréel bu ñun ñoo ko moom am kuréel bi jël seen daal for seen daal dem seen yoon ñun bokkati waaye fekk ñu ci ne dañoo jóg ndax jullit lañ jubloo wax bu julliti waaw ku def jullit a dugg suñu borom saxal ko ci alxuraan waxul baatub murit waaye iraada sax na ci alxuraan wala tatrudi alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi yuriduna wajha yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko bul dàq ñii nga xam ni dañuy nekk ci jàkka ji di ñaan yàlla di ko tudd di ko fàttali bu dégg ba tey te bëgguñu lu dul ngërëm ginnaaw mu nga muñ sax di togg ak ñoom wasbir nafsaka mooy fexeel ba téye sa bopp maa alladina yadauna rabbahum bil xadaati wal asiyi yuriduna nga xam ni dañuy nekk ci jàkka ji yàlla di ko ñaan di ko sabal ak bëccëg te jubluwuñ lu dul ngërëm ba téye sa bakkan not sa bakkan di ànd ak ñoom kon day mel ni kon ak ak murit tekkiwul rek bokk ci tariixa sàngam waaye mi jullit bu dëggu ci sàkk ngërëmu yàlla rek bu ne rek ak murit dadi nag ni sëriñ Bachir waxee boo dem murit moom taalibe yi tariixa yëpp lañ daan waaye ay murit waaye bi sëriñ bi ñëwee nag yeesal gi ñu yeesal wut ngërëmul yàlla ci xoli nit ñi moo tax ñu mujj ay taalibe ñu den waaye mu mel ne bu ñu ko waxatee ñoom xel yëpp ñoom lay dem waaye fekk ne ñooñu jiitu woon ay murit lañu woon. biñ demee nag ba mu mel ni dañoo fëtt lañ doon jàng lañ doon jàng Sëriñ Tuubaa ñoom yeesuwaat ci xol ay talib ñu ne ko dund war nañu far tuddee leen ay murit. keneen bëgg ngeen waaye sëriñ bi ñëpp ay murit lañ tuddee ndax fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida daane sawaun intama ilal jilani aw intama li ahmada tijani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qat'an ala sawa bi loolu li muy teg mooy kon ñoom ñëpp taalib bi yooyu ay murit lañ waaye nag li ma waxoon léegi rek ñàkk xam mooy waral bu ñu nee mot nga ne moom daal di jël a dem bàyyi leen nga xam ne nag moom la sëriñ bi jàngale ci di ko jàngale am murit dafa doon lu am solo ci dundub waxuma am murit waaye dundub jullit yëpp mu doon lañu soxla ci kum doon yonente yi ñoo jëkk dund teggin yooyu waaye ngir ñu xam solo si mu am ci dundub ab jullit dañuy xam lan mooy teggin yooyu ñu jubloo wax ba noppi ad adab dañ koy ci làkk arab nag bu ñu ko waxee mooy woote aw ñam nit bu toggee ay berle woote rek léegi loolu loolu moom la ñuy tuddee adab ci làkk arab waaye nag boroom xam-xam yi wax ni jikko yu rafet jëfandikoo jikko yu rafet yi dañuy tudd ay teggin bokkut ak buñ ne jikko ju rafet jikko ci biir lay nekk ci xol lay nekk ay teggin mooy jëf gi ko koy jëf ci say cër génn gi muy génn ci cër yi nga di ko jëf loolu la ñuy tudd ay teggin mooy loolu moo xaajal diggante jikko ak i teggin jikko dafay ci biir yëg-yëg lay doon ci biir saa bu génnee ci bitti ba ba ba man cee teg ba loolu la ñuy tudd ay teggin kon jëf ay jëkkoo moom la ñuy tudd mu mel ni islaam dafa soññi ñëpp ci ñu taxaw ci teggin yooyu sonn ci nit ku ne it war koo tàmbalee ci jëmmi boppam moom teggin yooyu tekki njabootu boppam ay soxna yi boppam ak i doom di leen yar ci teggin yi nga xamante ne moom la suñu borom digle ci alxuraan mu wax ni yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran fegal leen seen bopp ak seenu njaboot safara te fekk googu ci ñetti mbir la mën a nekk ñetti mbir nga mën a fegale sa bopp ak seen njaboot safara muy jàng jàngal leen li nga leen jàngal nga yar leen ci ba noppi nag dëkkee leen ko fàttali foo toll leen di jàngal yar leen ci ñu jëfe ko nga dëkkee di leen ko fàttali foo toll ñett yooyu mooy yoon wi ñuy jaar ngir fegal sa bopp ak sa njaboot safara ñaan googu la sun maam Ibrahima ñaanoon ne rabbana wabaas fihim rasulan minhum yatlu alayhim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yusakkihim dañoo wax ne ñett yooyu mu ñaan mooy diine ji taxoon yonent nit ñi yàlla di leen jàngal ndigal yàlla yi di ko fàttali fu ñu toll di leen nit bi ko suñu borom bindee daf ko bind mu ñàkk xam dara nit buy dugg buy wàcc si fii ci àdduna du fi indaale ab xam-xam fi ñàkk indaale bu bëgg tuwee noonu la fi ñàkk indaale ab xam-xam noonu la fi ñàkk indaale mën am-am nit bi mu ñëw fii ci àdduna amul dara mun dara xamul dara taw yi tamit ñett noonu lay defal kon man ak xam ak am lu gaar la ginnaaw nag nit dañ ko bind mu réer suñu borom defit muy fàtte kon fokk ñu jàngal ko fokk ñu di ko fàttali da di jëf dara it bala nga ko man danga nga ci am benn exemplaire mooy fokk nit day nag ci sa kanam di ko def nga xam ni kon lañ la doon wax nekk ñii la ñu koy defe loolu mooy solo si yar yar tekkiwul lu dul lañ doon wax ci xam-xam nit jëf ko nga gis ba mën koo jëf moo tax imam Ghazali dafa dem ci benn borom xam-xam benn cheikhul murabbi ni ko damaa bëggoon ku ma tarbiya mu ne ko da dem ci sëriñ bay jàngale xam-xam bu la jàngalee xam-xam ba noppi nga la ni ñu koy jëfee ni ko tarbiya du dara lu wan xam-xam loolu moo waral ñett yooyu kon ñàkk yar muy xamle ak yar ci nit ki ak di ko ko fàttali fu mu toll mu muy tolloo ak taxliya ji sëñ bi wax ak ak taxliya ak taxliya mooy nga rekki jikko yi baaxul ci nit ki ak taxliya mooy nga takkaayal ko jikko yi gën ci jikko yi jikko yi ñu war a rekki ci nit ki nag door ko mën takkaayal jikko yi rafet yi buñ koy misaal mi ngi mel ni fab nit ki sang ko ba mu set sol ko mu rafet léegi nag da cee am yu sëñ bi cité di ko faral di tudd lu bare bare day wax ne léegi jikko yu bon yi da ci am yu feeñ am ci yu nëbb da am yu feeñ am ci yu yu bon yi feeñ mooy da ciy tudd lu mel ni jëw ak rambaaj ak fen ak ak ak ak ak ak ak naan naan sàngara ak njaaroo ak yeneen demee loolu mooy jikko yu bon yi nekk ci nit ki te doon yu feeñ yoo xam ne ñu ko war dindi ba mu set bala mu mën takaw ay gëneen waaye jikko yu bon yi nekk ci nit ki te du feeñ daanaka tasawuf moo ko tax a jóg muy rëy ak iñaan ak yéem sa bopp ak njëstal ak naw sa jëf ak xeeb nit ñi koo gis yàpp ne ak loolu ay jikko la yoo xam ni na lee bare na la bare ni naan sàngara demee njaaloo demee ko sàcc demee ko noonu la jikko yi demee te ñu bàyyi duñ ko ñu bari duñ ko bàyyi xel loolu di nekk bokk ci li taxoon bi te alxuraan dafa wax ni wazaro zahiral ismi wa batinahu li feeñ ci bàkkaar nañ ko bàyyi ak li nëbbu ci bàkkaar la feeñ ci bàkkaar mooy leen wax li ci nëbbu mooy li nga xamante ni moo tax al te soo te mooy defal jikko yooyu ci nit ki ngëneel yi bari lool waaye mu andi ci juróom-ñeent yoo xam ni ñooy ndeyi ngëneel yépp mooy nit ki fu mu toll nii tuub tuub li muy teg mooy di dellu ci yàlla di dellu ci yàlla di dimbali ko yàlla di sàkk mu jéggal ak tawba la ci des mooy muñ muñ ci ngëneel yi nga xam ni nit ki mënu ko ñàkk a takkaayoo ci mbirum diine muy mbirum àdduna nag moo tax muñ boobu la koy tudd la jees mooy adduna yi dafa doon loo xamante ni dafa mën a yóbbu nit ki ci mu def lu dul noonu moo tax day bëgg nga nga nga dëddu ko nga xam ñàkk solo adduna ba nga def ko ci sa ko bàyyi xel pour mën ko dëddu moo tax yeneen sens nit ñoo ne ci moom ne ko dama bëggoon loo xam ne su ma ko defee nit ñi danañoo danañoo bëgg yàlla dana ma bëgg mu ne ko adduna boo ko dëddoo yàlla bëgg la nit ñi boo dëddoo la ñu yor ñu bëgg la izhad fi dunya yuhibbaka allah wazhad fii ma inda annaasi yuhibbaka annaas ba ci la ca desaat ci ngëneel yooyu nga xam sëñ bi day bëgg nit di takkaayoo ko mooy alxawfu war raja mooy ragal yàlla ak yaakaar ko nit nag man mën naa toog fii nan yàlla képp laa ragal waaye fekk ne bu dara di woon tell képp rek mu daw ñu xam ne am na leen lu war a yaakaar bëgg nit ki ay yaakaar yëpp moo aju ci yàlla ndax sëriñ bi lépp daf ko wane ci ay ay ay misaal ñu ngi nekk li nii ci mujj ci njaare euh, tubaab bi dafa ñoo wol wolu dafa dañoo dañ ko yónnee ni ko tubaab bi nekk Ndakaaru kilifa bi moo lay wax léegi ñu wax ni Serigne Gaawaan moo luyee woon wago wago saxaar léegi ñu lu mel ni suuf defal ko ko ci biir wago yi ba mel ni ab ruum ñu wut ay ndaa teg fa def ci ndox wut ay xalima ak i ndaa tegal ko léegi Serigne Gaawaan luyee wago wenn wago ci junni jamono boobu bi murid yi xam ne tubaab yee koy woon Ndakaaru ñu bañ cee bañ dara ni nag léegi dañoo nar a sëriñ bi yóbbu ko loolu moom suñu bakkan lañ ci gar ñu dem tëdd ci raay bi gari na ci ba saxaar bi mënta defar ba dañoo mujj ni leen bàyyi nañ ko daal di delluwaat seen ci kër gi ñëpp saxaar gaa dem génn njariñ léegi bi ñu seen bi ci oto mu dem ba ba ba saxaar gi ci kanam saxaar gi taxaw seen kër mu doog naa def dañoo wax ne bi ba àgg ci ci bureau ba ko kooku yee doon woo lam jëkk def mooy dafa fab sat la gi mu yoroon sotti ko ci euh, sees bu fa nekkoon ba mu ñëwal a ngar mu fab tapis bi teg ko ci fab kaay bi teg ci daal di kàmbar julli ñaari rakka doo ko wax tubaab bi ne ko loo ma doy tubaab bi ne ko dama la jëkk laaj ba wax ma mooy ndox mi nga fi sotti ba mu war a gàll foo ko teg loo ci la ca des mooy julli gi nga fi jël te fii du jàkk loo ndox mi ma fi sotti kàlu bii fii day lu tedd te yéen ndax suñu borom moo wax ne innamal mushrikuuna ne ko julli gi ma fi julli damaa fekk ngeen defal béréb bi moom wóor ma ne jaamu yàlla képp a fi te mu wóor ma ne wóor na ma ne mosu leen fee jàll moo tax ma ne ko fi jàll. tubaab ne ko waa léegi ma gàmm ga nekk France moom ñu joxoon digal ci ne la woo ba nga ñëw fii ñu laaj la li nga bëgg ñu defal ko sëñ bi ne ko li ma bëgg mënul leen ko te amu leen ko. ka ko mën te am ko nag defal na ma ko noppi. defal na ma ko noppi. nee na tubaab ne kon jërëjëf euh, ñoo ngi gërëm di la gërëm ku ñu ko kon day ngeen mu mel ni lu mu doon ci lu mu jàngal rek jëmal na ci ci béréb ñu gis muy tuub googu tuub gi waxuma la tuub waaye sëñ bi daan tuub bay tuub tuub gi muy tuub day wax ne xataa la ko bi ba ci tuub gi may tuub sa dama koy tuubal naka noonu ragal ak yaakaar ak dëddu dëddu àdduna ak lu ci yàlla wakkiirlu ci yàlla jamono fa ne damay wax ne nit ñi wërsëg ñor na leen lool ñu wax ni juróom benn mbir mooy sabab wërsëg te lu ci ne suñu borom tudd na ko ci alxuraan asbaabu risqi sittatun muhaqqaqa tuqan tawakkulun salaatun sadaqa kadaka al istixfaaru wa taxarruku wal kullu fi lqur'aani jaa mudrak mu ni tuqaa mooy waman yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa yaxtasib dama koy misaal dama misaal ne jamono bi mu toll tubaab yi dañoo wala boobu yéefar yi dañoo sakk buntu yi ab jullit waroon a mën a jaar mm-hmm. ubbil la benn bunt boo xamante ni dafa araam ñu la buntu bi képp ci nga mën a jaar pour jàll boo ci jaar pour jàll mm-hmm. mooy buntu riba ci misaal balaa kenn mën a am kër bu baax mbaa nga am nangam nag a da ci wank leb fa te boo lebee ñun la li nga ñu leb nag bu dee téeméer la boo koy fay fayal téeméer ñaar fa riba la dina daf koy teg <laughs> waaye suñu borom ne ko may taqi la mm-hmm. li la yàlla tere bu fekkee bàyyi nga ko fa danaa la ubbil prof loolu bu mën a jaar ndax béy wuñ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan te benn bët boobu dong nga fi nekk dañu ko sàkk fépp daanaka kuy laajee loolu lay laaj suñu tool yi banque yi man si jël alal man si def naag man si def naag man daal mooy te ba yàlla duñu tal <laughs> waaye nag yàlla dane wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu tawakkul mu ne wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu ku wakkiirlu ci suñu borom yàlla dana ko def salaatu mooy julli boo ko fonkoo fonk loo ko sag njaboot dana ubbi bunti wërsëg loolu mooy wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir alayha laa nas'aluka rizqan nahnu narzuquka sadaqa mooy wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru r-raaziqiin kazaaka l-istigfaar istigfaar dafa wax ne fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaaran yursil samaa'a alaykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaat ba ca des nag mooy yëngatu wa taxarruku mooy fam suufi manaakibihaa wa kulu min rizqihi mun nag suñu ko umpalee moo tax bu ñu nuyu sonal képp lañ jàpp moom mën a may wasak waaye juróom-benn yëpp sabi wasame yi nag ci alxuraan loolu lépp ma ne kon sëriñ bi juróom-ñeenti ngëneel yooyu mu jàngale day naye ngëneel yi nga xam ne boo ci jaaree ngëneel yi ci si dan la fekk mu foofu la ñu war a jaar kon ngir defar nit ki ci mu mu rekk yu bon yi ci ci moom takkaayoo ngëneel yi léegi nag loolu lépp nag bu defaree nit ki ba mu defaroo dafa war a am résultat résultat ba muy am muy jeexit yay feeñ ci jëmmi nit ki ginnaaw bu ñu ko defaree jaarale ko ci euh, rek yu bone ci moom takkaayal ko jikko yi baax yi résultat bay feeñ moom moom la ñuy tuddee ay adab ay teggin moom la ñuy tuddee aadab booy te nag léegi teggin moom la sëriñ bi wax ni mooy liy eggali nit ci yàlla waaye du julli yu bëri du woor yu bëri du leneen yu bëri jëmmi ay teggin mooy li nit mooy li eggal nit yàlla wax na ne at-turuqul muusilatu ila llahi taala ala adadi anfasil xalaayiq yoon yi eggale nit ci yàlla toll na ni nooy mbindéef yi daal ne waa aqrabuha ila llahi al adabul mardi daal ne waaye bi ci gën a jege yàlla mooy ay tegin daal ne at tasawuf kulluhu adab tasawuf ba tasawuf jeex ay tegin rek daal waxit ni xam-xam lu bari bari bari bari bari te ënd xam-xam ay lor lay indil nit ki ab col fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun illa allah taala xanaa moom la sëñ Ba jaxte wax ni aw yaree tax ñu xëy fab nit ñi tegg ci kaw ñàkkub yaree tax ñu teggee nit ci kaw di ko caw ñàkkub yaree tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw sëñ bi wax ni ay teggin dafay nëbbu ak réer di nëbbu askan wu kenn bokk askan woo mën a bokk boo amee ay teggin dina ko nëbb loo umpalee umpalee boo amee ay teggin dina nëbb sa kër boobu yox fii jahalatan wa qubha nasabi la wax moo tax am na benn boo xam wax ni kun ibna man chita waktasib adaba nekkal doomi ku la neex te fexe ba ami teggin yox nii ka mahmuduhu anil nasabi la la nga cay amee ci ay teggin dana la doy wala si ngeen am ten la bokk daal ni inna al fata man yaqulu ha anaza laysa al fata man yaqulu kana abi nit dëgg mooy kuy wax ne maa ngi nii waaye du caagee nit mooy kanaan sama baay nii la mel nii la nii la bi mu buntub ñetteel bi ci Masaalikul Jinaan mu tënk ko ci ay teggin ak i ngëneel ñu ngi ko tàmbalee ci i'lam habaana allahu fi daarayni bi fadlihi subhanahu nuurayni bi anna xayra ma bihis daanal fata talaasumul adabi xay suma ata mun léegi xamal ne li gën ci lu nit ki waaje lu gën ci lu nit di taarloo mooy taqwa ak tege li annahu bihi ila rahmani yasiru mooy li ma ko léegi ci lay egg ci yàlla ci lay demee it aljanna daal fa kullu man bi gayrihi raamal wusul képp koo xam ne bëgg naa egg ci yàlla bëgg jaar ci fudul ay tegin li hadratillahi fa xumrun laa nabi na xam ni ab ki nga xam ne daa bëgg a egg ci yàlla te amul ci teggin dafa na jàpp ne mu ne wax nañ ni teggin daanaka moo buñ xaajoon diine ñetti xaaj ñaar yi mooy mooy ay teggin daal di nag teggini zaahir la ak yu nëbbu bu defee teggin yi nga xam ne dafa nëbbu nag sëriñ bi wax ne saa boo ko ñaawalee bu rafetul rek dañuy dox sa diggante ak fii bi yàlla léegi sëriñ bi bi muy wax teggin yi war a dox diggante nit ki ak borom nekkul di ko lim naan la mi ngi nii mi waaye dalaa wax ñàkki teggin sa diggante si borom ni la moytul ñàkki teggin bi rek loo defaat nag loolu ñàkki teggin bi loolu defaat rek ay teggin bi la jëkk ci ak ñàkki tege ndi ngeen liggéey borom ko moytu li ko nit ñi mooy dogalu ni ak neexoon nii bul ni teemoon dafa nii boo ni bul ni lenn lenn ci critique luy nuru critiquer boo def dogalu wax ni critiquer nitu yàlla wala yii ba ti di loolu bokk na ci ñaawi tegi ndi ngeen nit ki ak naka noonu yàlla tànn nga tànn nga bëgg a tànn ci pegg ba ba muy nekk ni léegi euh, soxna si ñuy wax Zeynab bintu Jahsh euh, yonte bi daf ko daf ko may Zeyd ibnu Haarisa mu gàntal ngir raciste gi dox ci diggante ay xeet léegi moom ab Qurayshi yi la doomu bàjjen yonte bi waaye nag ayat alxuraan wàcc ni maa kaana li muminin wala muminatin iza xada llaahu wa rasuluhu amran an takuuna lahumul xiyaratu min amrihim léegi jullit bu góor bu jigéen yellu ci ñoom yàlla tànn ba noppi ñuy wutaatu tànn léegi mu d'accord ngir loolu yi su doon wax waaye teewul nag euh, rëng-rëng am na ca sëy bi boo fi dafa mujj tas léegi sëñ bi wax ni ba tey gestu bi ne xëy na mbaa nga leen ragal bokk na ci ñàkk tege diggante keeg borom naka noonu lu euh, bëgg topp yu yomb yi yu yomb yi yu yomb yi yu yi di ko topp ba tey loolu euh, du ay tege nit ki dafa war a ñeme lu metti ba nga xamante ni bu ñu andee sëriñ bi daanaka doon daan doxee sax lu mu mën a doon la ci yomb la ci jafe la ci jafe daal la ci yomb waaye yi yomb yi daal la ci ñàkk lu yàlla daganal ci yow di ko jëfandikoo te yéene woo ci loolu ñàkk teg la ba ci ba ci lekk ak naan ak lu mu mën a doon lu yàlla daganal ci yow boo ko jëfandikoo na nga ci yéene ak topp yàlla ndax yàlla dafa ñu jàmm ko moo tax lu mu na ci yéene ak jàmm boo ko defee te yéene woo ci ak jàmm nee na loolu ñàkk ay teggin di diggante ak sa naka noonu yàlla yëm yëm daganaan nga di ko jëfandikoo ba noppi bañ a bàyyi la aram loolu ñàkk tegi na it nelaw bëccëg te fogoo fogoo ci guddi gi ki may mu nelaw bëccëg mooy ki nga xam ne guddi gi dafa naa ne xool la nee na nelaw bëccëg ci guddi gi loolu ñàkk tegi la diggante nit kay nelaw te nelaw notu la loolu ñàkk tegi dañ bëgg nit moo nelaw ne ko nelaw not bu wóor waaye bu mu tëdd fenn di batal ñu di fa xaar nelaw dafa wax yéen ni bokk na ci ñàkk teggin nelaw guddi gi àjjuma ñu ne suba la àjjuma guddi googu képp ni ci tasawuf du ay teggin nit ki dafa daan doy lii ak mbaa mbaa lii baaxul ci man képp léegi naan du ay teggin diggante képp borom bul moomale sa bopp dara jàppal ne lépp yàlla wax ni lenn damay lor jàppal ne lor ci loxo yàlla rek ak njëriñ naka noonu julli mbooloo woyofal ko boobu saa bu ñu nodd rek nga gaaw a xabaar daal julli fi nga toog daal dem sa loolu ba tey nee na ñàkk teggin la diggante nit kay borom. Hmm. naka noonu tëppal rek bañ naa fi la guddi benn rakka guddi bu njëkk nelaw bët si la nga dem si nga xam ne dañ koo tëppale loolu nee ñàkk teggin la nit kay borom lu métti métti nit ki war nañ def léegi-léegi mu taxaw guddi naa fi la doon si ñaar rakkaal sax lu mu nee bu bii mu tuddaat nag mooy weddi wàll yu ak jegeñ lu bóor yi àddina yi lu ci ëpp ñaar ñuy weddi nit yàlla yi hmm. ña ngay def effort pour mën a xaritoo ak buuru àddina hmm. loolu léegi ne du ay tegin diggante teg borom naka noonu woote maqaam wooteeg wilaaya daa bokk ci ñàkki tegin diggante teg borom loolu yi mooy ñàkki tegin yi sëriñ bi tudd waxul limul limul tegin yi war a dox diggante teg borom waaye dafa lim lay ay ñàkki tegin ni loolu na ko nit ki moytu bu defee nag mu des teggin yi nga xam ni teggin yu feeñ la nga war ko àndee ak mbindeef yi jaamu yàlla yi mu wax ni la ci jëkk ci ay teggin mooy gone na nga ko yërëm ba mel ni yaa ko jur mag mu na nga ko wekk ba mel ni moo la jur sa moroom mu ne na nga ko jàppee si sa jëmmi bopp loolu mooy mooy mooy fonde teggin teggin yi nit war a ànde ak ak nit mooy gone na nga ko yërëm ba mel ni yaa ko jur nga wekk mag ba mel ni moo la jur sa moroom mu ne na nga ko jàppee ni sa jëmmi bopp loolu mooy irham saxiran laa takun muddaxira anhu layaadan min nasihatin tura gone na nga ko yërëm loo gis mu dig laa biir te moom rek euh, nangu ko woon waaye nag yërmaande mooy la yërmaande mooy yëg ci sa xol bëggal nit ki aw yiw yëpp ci sa xol euh, bañal ko aw ay bañal ko bañal ko lépp loolu dugg yëpp yëg yëg boobu nga yëg ci yéene ko aw yiw bañal ko aw ay loolu la ñuy yërmaande moo tax aji yërëme bala ñuy tuddee nit rahim ni kii mu ngi yërëme yéene xol jooju day ànd rek mu jëf ci lan man bu dee dañ ko war a fayal mu fayal ko ko bu dee dañ ko war a defal mu defal ko ko waaye waxuñ njëg yi waxuñ rek léegi waxuñ léegi nit ki am jafe-jafe nga ñëw tiim ko rek naan daa daal ne andaysaan benn daa dem seen déet loo ci mën dañ ko war a def ngir bu dee lor la ju koy lor nga fegal ko bu dee ndimbal li ñu ko war a dimbalee nga dimbale ko bu loolu amut rek des la tuddee arwaxe moo tax yëg-yëg bi li fekk ànd ak jëf te fekk yow mi ko yëg yaa ngi ci amal noonu rek léegi yërmande yooyu du du compte bokk na ci yërëm gone di jëflante ak moom façon jëflante boo xam ne dalay bëgg waaye du la ragal Serigne Saliou daan digal gone yi ni leen gone yii da ngeen leen yar da leen di yar ci Pastef te bañ leen a yar ci ndax ak noteel la muy yàq moo ëpp la muy defar leen wax ni leen gone gi gone gu gone gi da nga koy jàppee ne sa rakk ji nga bokkal ndey ak baay yërëme ko noonu boo ko doxalee moom noonu dana la wekk jàppee la ni magam ji bokkal ndey ak baay te boobaa loo ko digal dina ko def nga ba ci ba ci yar dafa am yoon ni mooy da jëkk a attiré ki nga yar ba mu bëgg la ba noppi nga doog a tax yonent bi sansom noonu la daan doxee daan romb xale yi nuyu leen daan romb xale yi di kaf ak di daw di daw sax ànd ak xale yi nii ak di leen tungoom daan tungoom Ousseynou ak ak Hassan daan sëgg ñu di ko war ñu di ko war di dàq naan ari mu naan leen ni amal jamalu jamalu kuma naa leen seen gileem ko gileem am ngeen gileem bu baax de buñ ne weeg mag nag ba tey mag ay façon ay xeet la am na mag moo xam ne ay at la la ëppale magum at ci boppam da ko war a war mag mag mi la mag ci ay at am na meneen mag moo xam ne xam-xam la la magee am na meneen mag moo xam ni eh, ab cër cër cër buñ ko dénk ci àdduna responsabilité cër la mag ku ci ne dañ ko war a war mal ki la mag ci at dañ ko war a war mal ki mag ci xam-xam da ko war a war ki la mag ci responsabilité noonu ñett yëpp nag sëriñ daf ko jàngale ki la mag mu wax ni bu toog moom ci kaw lal bu toogee ci kaw toogal ci suuf bu ngeen bokkee di lekk la gën ci ñam ba bàyyee ko loolu nag toujours wax ne ni mu leen la gën ci ñam ko nit ñi moom seenu xër day àgg ci ñu dagg ñu koy dagg sax fa tegal ko waaye may wax ne mën nañoo bañ àgg foofu mën na bañ a àgg ci ci dagg gi di la ko di la ko tegal ndax loolu mën naa am sax muy seen ñu bari bari ñoo xam ne mm-hmm. waaye nag day bëgg nga ëffal ko ci diggante ci ñam mm-hmm. naka noonu boo toogee moom day bañ nga sës ci moom rek nii di ko seen day bëgg nga daan ko tuuti loolu noonu la ko digle ci ay teg naka noonu bu ñam bi ñëwee bul jëkk wax lu jëm ci ñam bi da nga koy déglu ba mu ba mu ba mu joxe ndigal ba noppi lii mooy teggin yi yoonu murid yi nga xamante ne moom la ñuy tuddee ak taalibe moom la ñuy dajale bu jeexee ñu tuddee ko ak taalibe bul toog mukk tàllal say tànk mu jëm ci moom boo toogee da ngay bank say tànk am na mboo bay yoo xam sañ bay jaar dafa tànk yi boo jekkee bi sa ku ba mel ni jaamam ba mbaa doomam ju ndaw jëmu jëf loolu daa bokk ci teggee ni yoon mu ñu bank say tànk ba a taal tànk mu jëm ci ki la mag naka noonu lépp sab gis nga damm ko bul bul ko def jàkk ba tey loolu ba tey ci tekki jooju bokk mooy da ngay xaw a lan sax tuuti loolu lépp nag ab yar la boo xam ne boo xool alxuraan di ko fekk yar lépp lu mu soxla nga gaaw defal ko liggéeyal ko loolu lañuy ñuy àndee mag moo la mag ci ay at mag magum xam-xam ni wala magum responsabilité bu ñu ko dénk dénkuñ la ko léegi yooyu ngay jël ba nag dolli ci. boo nekkee fi moom bul bari la am ko bul bari ab yëngutu na nga notti dal boole si bul boo booy rey na nga muuñi rek waaye bu bul bul ubbi sa bopp reenum la neex kooku bu la bétti nga lee na ko dékku na nga ko jéem a te di ko suturaal te bul ko ne jàkk di ko xool te bul ko mere te na nga sax ci di faj aajoom loo man loolu yi noonu la ñuy àndee ak borom xam-xam bi ak nit ku baax bu dee borom xam-xam bi ñu doole ci mën la dee ko siyaare ji moom nit ku moom nit ñu baax di leen siyaare ji di fab sa addiya di leen di sàkku seen ñaan di sàkku xam ci ñoom foo léegi bokk na ci teggin yi teggin yi nit di ànd ak borom xam muy sàkku ci moom xam-xam loolu la wax ni ci teggin yi ñu ànd ak borom xam bokk naka noonu nga sa nga farlu ci lu gi ngay xam xamlu di farlu ci xam-xam xam-xam yi nga fab sa heure bépp nga jox ko loolu ba tey bokk na ci teggin yi ñu àndee ak xam-xam àndee ko borom xam-xam ba tey nga néewal say nelaw ci booy sàkku xam-xam bokk na ci teggin yi ñu àndee xam-xam naka loolu bañ a ak gàttal say say ak guddi gi it nga fas ko fekk foog di ñàkk nelaw guddi ak di mar di yendoo woor rek ngir gëstu xam-xam ak booy jàng xam-xam yi nga toroxlu muy toog ci suuf bañ a toog ci kaw jëpp nga boole nga dajale ko ci li ngay sàkk mu ñor la xam lu it nee na waree su ko euh, néeg-néegal naan naaxaar bi det sànni jamono bu ne det sànni xam-xam tey du weesu xam-xam du weesu dañuy wax ne euh, am na benn borom xam ñuy wax institut diine ibnu am islam dañuy wax ne mu amee cinquante ans ci la wéet ci sàkku xam-xam ci xam-xam ni xam-xamu diine képp moo ko ñor quatre-vingt quelque ans la muy juróom-ñetti fukki yi te bi mu fi daan jógee dégg na sultaanul ulama booy nañ ko kilifa borom xam-xam kon euh, amul âge jamono bu ne war nga mën a sàkk la ñor nan la sëriñ bi jàngalee ay teggin ci booy jàng alxuraan ay teggin ci booy sikartul yàlla wa udda min aadabi dikri dakiri juluusu abdin fi makanin tahiri mustaqbila alqiblati data rabbuin aw mutawarrikan ci teggin sikar sikar nag alxuraan julli ci yonent bi ñaan lépp dugg na ci cadre sikar waaye mu ne bokk na ci tegin sikar nga nga banque say tànk mbaa nga frankla yi jublu penku toog ci biir bu laab ba noppi xeeñoo xet gu neex daal ni is la taxlu majalisu dikri ila ma tajlu min al malaikati eh, bistimaai wa muminal jinni xala ijmaai nee na jotaayu sikar saa bu jógee ay malaaka dinañ fa ñëw di déglu jullit ci jinne yi it dinañ ñëw di déglu kon nga bàyyi leen xel teggin mu sa diggante ak noonu la sëriñ bi jàngalee teggin nit war a ànde ak way juram wax ni ñaari way jur na nga leen topp di topp seen i lépp luñ la tere nga bàyyi ko baat ba gën a suufe ci baat baat buy nuru lu leen di béccingal bu ko wax offense offense jooju mooy li gën a tooti ci lu ñuy bañ ko wax ne mooy cippitu sax dañuy bañ cippitu dañuy bañ nit kii woy juróom wax ba noppi mu mu mbaa sax te am na si ci borom xam ñu àgg ci ni ba ci sax nga ñàngal sa kanam képp rek hmm. ba mu mel ne li ñu doon wax naqari na la képp rek dañ la koy tënk sa diggante say woy jur wala taqul lahumaa uffin wala tanharhumaa gëdd wax ñoom na ngeen wax wax ju ju baax ju rafet waxfid lahumaa janaaha dulli min ar-rahmati mooy na nga wàccee sa bopp ngir yërëm leen ba noppi di leen ñaanal nag yërmaande ni nga xamee ne daan nañu daan nañu ko ci yow ba nga mën per waxul rabbi rahamhuma kama rabbayani saxiira naka noonu àndandoo yi àndal dafa am ay teggiin yu ci yoonu mur jàngale muy la ci jëkk mooy wax tabiri rijaala xabla sooba bala ngaa bala ngaa ànd ak nit na ko nattu ba xam ban xeet nit la mu ne wala tusaahib xumran aw zaran bul ànd ak dof bul ànd ak ku bari lu muy xewee daal ne bul gis nit it mu sol col gu ñaaw ba nga xeeb ko waaye bul gis nit it mu sol col gu ba nga jàpp ni kii mooy nitu yàlla ki gën a rëy ci yàlla mu ne wa rubba abdin xat ala inda al wa saytuhu intashara fi l buldani wa huwa kal na bari na nit ko yow oh, kii xutbu sama waaye <laughs> wa rubba ku ñàng bari ay këgëstal ab ter ak i tënam te fekk daa fees dell la ak ak leer diggante bu borom la lépp ci teggini àndandoo la bokk muy wor na tànn àndandoo bu la ànd ak la ànd ak ku iñaan bu xam da nga dolli ko ci moom diine mbaa ngay baax na waaye budul kooku na na ànd na ci teggini àndandoo bu leen nax fexeel ba lu mu doon wax leen la ci wér bu leen nax fexeel ba bu leen jox rendez-vous mu koy di ko faussé loolu doo nga teg say ànd naka noonu nga ci nooyal say wax lépp loo xamante ne dana yokk ak cofeel si diggante ñoom rek nga di ko def loolu ay teggin di diggante nit kii ak i ànd naka noonu bépp aajo bu ñu aajowoo nga jàppale leen ci di leen liggéeyal di leen jëmbale sa kem kàttan boo jumee nga jéggalu leen leen maa ngi jéggalu ñoom te ko nit it ki ngay àndal lu mu sàkku ci yow ngay nga xool mu yeyoo ko na nga ko wóor am na lu muy ñëw sàkku ci yow nga xam ne na sa soxna amoon lu muy ñëw sàkku ci yow da nga xam ne na ko sa àndandoo am na lu muy sàkku ci yow da ngay xam ne yeyoo na ko ku yeyoo ku ne boo ko sàkku ci yow na nga noonu la sëriñ bi jàngalee teggin yi war a dox diggante nit ki ak gan gan bu jaar rek jaar mooy nañ ko yaatal première fois nañ ko bari lal ay bernde ubbi sa kanam si diggante bi noonu la jàngalee ay teggin diggante nit ki ak kuy jàngal ak cheikhul murabbi yi ñu ànd ak cheikhul taalim ak cheikhul murabbi bi mooy nga wet ko di sàkk ngërëmam foo toll ci di ko jox loo man ak di ko liggéeyal ak boo àndee ak moom it nga bañ a mel ni ku ànd ak sa moom ànd ak moom ci war na ak lépp lu mu digle nga def ko lu mu teree nga gaaw nga gaaw moytu ko bokk ni ko njëkk a ak lépp lu aju ci moom moom sëriñ yi lu aju ci moo xam soxna am la mbaa doomam la mbaa ab mbaa ab xaritam la ko war loo man ci addiyee nag nga jox ko ak lu mu néew yow baax na teggin yi ci des nag day teggin yoo xam dafa généralisé nit ki ay teggin yi muy ànd ak jëmmi boppam sa jëm bopp rek am na war ma joo xamante ni da nga ko war a jox ak teggin yi sëñ bi joxe nga war caa dox si sa bopp la ci njëkk mooy bul fekk mbooloo mu nelaw ñu nelaw seen biir wa in xadabta laa takun za nawmi bayna zawi yaqadatin fil xaw boo ko mënee bul fekk mbooloo mu nelawut ngay nelaw seen biir li annahu laysa min al aadab is fiihi maa fiihi min al xitaab daf ko lëb ñu bokk ci ay teggin ndax lu ne nga ci naka noonu boo toogee ci jotaay bay jóg nga bañ a jóg xëpp nit ñi suuf si waaye da ngay jóg ndànk barandu loolu ñi mu ko jàngale ci ci ci ci naaju bi noonu la ko daan noonu la ci daan yaree nit ñi pour ñu jëf ko sëriñ sëriñ Saliou dafa maa nettali dafa am mag ku toog ci sëriñ bi bu jóg xëpp nit ñi suuf si sëriñ bi ne ko kaay mu ñëw mu ne ko boo toogatee ci aw nit bay jóg da ngay góof sa yére ba ba sori waaye doo jóg rek xëpp nit ñi suuf si mu ne ko tub naa ko baax waaye fekk sëriñ bi daf ko doon wooloo am mag mu dem woo mag ma jiitu di daw góor ga topp ja ba mu ñëwee ba agsi di xeexee ba xawute mën a wax ak sëñ bi sëñ bi ne ko bu ñu la woolootee mag da nga koy jiital mu dox bàyyi ko mu dox ni mu mane nga topp ci naam hmm. waaye doo jiit di daw mu topp lay sëkk-sëkk ba xamut li ñuy wax mun ko tuub naa ko baax sëñ bi ne ko tuub na waaye tuub tuubee nag amul solo tuub baax na waaye foo toll def hmm. noonu kon bokk na ci teggin yi mu jàngale koo wóoteel gis-gis mu wax nga gise nii moom mu waxee ne mun la bul wax nit mukk ni ko fen bul wax nit mukk ni ko jóg bul wax nit mukk ni ko waxu dëgg boo waxee loo xam nekk xuma ko mbaa nga ne ko damaa jàppoon ne nii la teggin nii laa ko jàppoon naka noonu jàngale na teggee ni yëglu bala ngaa dugg ci nit nga yëglu muy ay teggin yu am solo yoo xam te ne dana defar ay relation ndax liñ naan ganub daf mooy jëkk ni bañaax buy ñëw yëglu buy dem tàggu loolu la sëriñ bi di bañal ab tali ba tey moom la sëriñ ba jaata wax ni du xoole du du murit du waaxu ni jot lay fekk ab sëriñam ci ab as su ko kenn woowu waaw loolu nee na ba tey ay teggin moo tax sëriñ bi diisoo daf koo jàngale comme ni suñu doon digle ni laa tadxuluu buyuutan gayra buyuutikum bu ko defee nag diisoo bi ñu taamu nag nga xam ne moom la euh, dina digle mooy nit ki ne asalaamaaleykum ndax na na maa ñëw ndax mën na maa dugg waaye bu ko waxee ñetti ko tontuwul sax. li yoon mooy mu dëpp waaye bëgguñu ko jagee rek boo dee asalaamaaleykum ak bañaax ci kii nuyoo yi dañuy bëgg buy nuyoo mu bañ a taxaw ci digg bunt bi waaye na ma ci peggu ndigal bi foofu it bëgg kuy gisoo mu taxaw fi loolu mooy hadis bi Abu Daawud nekk li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ñëw ci ab néeg du taxaw ci jàkkaarloo buntu bi waaye day toog ci taxaw ci peggu ndigal bi mbaa ci bi wax asalaamaaleykum bokk na ci ay teggin yëpp ba tey buñ la ne boo nuyee ne asalaamaaleykum la mën a diw a rek ci mën a ci mën a ndax jaabi leen Abdoulaye mi ngi nekk li dama ñëw ci yenn télévision bor moo doon lijjanti ma ne kooku ma ne ko mën a mu ne yenn bi mën a mën a mën a rek mu mel ni dafa bañ baatu mën a mën a jooju fokk day wax ni man a diw diisoo yi ñetti yoon ña waxal salaamun aleykum ñetti yoon te taxaw ba dégg nekk la bismillah comme noonu bu yàlla dogalee ñu wuyu la baax bu ñu la wuyu nga mu mel ni danañ ci dugalaale ba tey kon teggee ni téléphone boo wootee foofu nga ne mën a diw bañ a wax rek mën a mën a tey wax asalaamaaleykum moo moo gën a doon ay teggin ci ab jullit ba tey ñi nga xam nag dañoo dëkk ak yow doon sa sonne bopp ak sa njabootu bopp ñooñu moom suñu borom danañ fixé ñetti waxtu yoo xam ne bala ñoo dugg si war nañoo yëglu waaye bu dul ñetti waxtu yi rek mën nañu mën nañuy bagante dugg ak génn loolu mooy li yastaadankum alladina malakat aymanukum walladina lam yabluxul xuluma minkum salaasa marratin ñetti yoon min qabli salaatil fajri wa xiina tadaawuna siyaabakum min aldahira wala mbaa di salaat incha yi moom loo jaxasoo jaxasoo ak nit bala nga koo seeti bala ngaa dugg néegam na nga ko yë na nga yëglu ba noppi ginnaaw gee ak digg bëccëg ak jëkk wax ne bokk na ci teggin koo ñëw ci moom nga nuyu ko bokk na ci teggin delloo ab nuyu ci ku la nuyu bokk na ci ay teggin saaf mu saafante ci loxo joxe loxo saafante bu baax te bañ a jékki-jékki rek fif ko ak doole naka noonu bala ngeen tàggoo kenn ku ne ñaanal sa morom aw yiw loolu ba tey bokk na ci teggin yi sëriñ bi di jàngale bokk na ci teggin boo duggee ci néegu jàmbate nga bañ a boyal sax gis rek fa la neex nga xool fa waaye ngay lamsal ngir dañuy bañ kuy xool awray jàmbur di jubluutal koo gis naka noonu bokkul ci ay teggin nit ki lum nëbb ci am néegal mbaa mu def ko ci poosam mbaa mu laq ko ci ron ron ab ab ban nii mbaa mu ngëpp ko ci loxoom sax doo yi tegee nga def nekkal ci pour xam ñu denc dund kon yi nga xam ne bi may wax ci njëlbeen bi damaa wax ne lépp lu ñu war a jéggi feneen am na fi tey yàlla ni mu seetlee cër yi ba ajewul kenn di ab noppu noppub jàmbur mbaa tànkub jàmbur mbaa loxob jàmbur ab di kilifa mbaa ngay ab jé jé jéggaani ak kilifa mën naa ñàkk ba tey hmm. maanaam lépp lu mu doon rek. yàlla jox nañu kilifa kilifa nga leeral na ma lépp lu war a mën a jéggi feneen kon loolu yi mooy li ma tënkoon ci teggin yi nga xamante ne sëñ bi jàngale na ko ci teggin yi yi war a ànd ak borom yi nit war a ànde ak te buñ ci doxee yiwu adduna ak alaxira mi ngi ci biir tey teggin yooyu ci nii ma ko jàngalee walaabal na fépp fu ne mën na faa dox moo tax ñu di ko lu ci am solo li ma waxoon jënd naa ak fàttalee lay doon xëy na du si ñàkk nit def mën a fàtte bu ko defee ñu di ko fàttali ko di ko bàyyi xel fi ñu toll di ñaan yàlla mu defal mu euh, ndimbal ak tawféex defal mu ak dégg ak topp ak jëriñ euh, nangul suñuy jëf te ko fa yàq yëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa nekkee ñu mag ñu la ëpp xam-xam ak yooyu daal parce que yàlla dafa def mënumaa toog nga fokk suma toogee man samay tànk mënu ma ko bank naa xanaa kon su ma toogee man damay dem ca ginnaaw wala lu may lu may euh, ak man lañ koy digal waaw saa boo amee ngànt ci mbir ba ci koor gi di ko suñu borom di dafa wax ne ku ci tawat nga xam ne yaatal mën a war bàyyee bàyyee nañ bis boo nekkee ci ab tukki ak tukki ni mu ni mu faral di amee ay jafe-jafe bàyyi ko ba yeneen bis ginnaaw nag farata jooju ci la ni ki ko am nangam kon ngëneel la di ay <coughs> loolu leer na suñ koy amoon ah, maa ngi leen di nuyu baax a kilifa yëpp leen baal wax tam di leen baal ci weer wi nu dugg ñaan sunu borom may na fekk ko yaat yu bare bare lépp lu ci rëcc rëcc suñu diggante jëmm ji ak yéen ñoo ngi di koy jégal bu baax a baax a baax kon sëriñ bi noo ngi baax a baax xëy na xawma li xam wax ab laaj lay doon wala ab taddaxul ci waxtaan wi nga xam ne doon nañ ko wax may jégalu sëñ Mamoun dañu ma xale yooyu ak laaye gi nga xamante ni sëriñ bi daan na ko laaye biir képp ku mu nekkal kon xawma nun ni nekk fii ak uh, sunuy tuut tànk ak dëkk bi ni mu bi jafee ak ñoom kon ñooñu lan nan nañ leen di dimbalee wala kan moo leen di dimbali ma dolli ci ni li nga wax léegi misaal mi nga joxe ne sëriñ bi tutànk bi bi mu ko yónnee bi mu jógee xëpp nit ñi suuf da ko woo mu ñëw mu laaye ko biir mu demaat def li mu def ci xawaat waaxuloo mag mi waaxu mu mu mu ñëw mu laayewaat ko biir xëy na loolu xaw nay mel ni xëy na dana manqué kon ci dëkk yi mel nii li nga xamante ni nee na dëkk bi bindoo ak jamono ji ta loolu tamit xëy na da doon doonne woon ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax xisab mu doon xew lool tànk ma ngi doon xew lool mu wax ko yemal ci sa kanam ak del lekk del wax bismillahi rahmaani rahim di lekkee sa ndeyjoor te yem ci sa kanam loolu ñëpp dégg nañ ko kon xanaa loolu ñu ci doole ci euh, xale yi nekk ci dëkk bi ak noonu ci war a gën a taxawe xëy na loolu bu dee ab laaj kon loolu mooy laaj bi kon xëy na incha allah jërë ngeen jëf. ab yar moom la ci jiitu rek mooy jiitu di jëf moo tax ba ne wala lu ci ëpp ñaar loo ko bëgg a wan biirul sax wax ji bari waaye de de ko jëf muy gis rek loo ko bëgg a wan de ko jëf. de ko jëf muy gis ndax euh, fii bu dee Canada ak yaa ma demoon de gis naa fa xale yoo xam ne. Euh, seen bàyyi doxil moom doxil ñoom daal lu am solo la ci dama ko rafetlu loolu ngir dañoo dem ba lii da leen di neex taalibe gi ñuy dund day neex xale bi nga xam ne moo koy gënal leneen jamono bu nekkoon léegi xale bi yaa koy xëcc ci su jën bopp ni di ko bëggloo melokaan yi ci sa kaw ci sa jikkoy bopp nag jikko ji rafet ci ko koy mën a bëggloo ba mu bëgg ko ba nga xam ne moo koy gënal la ko tubaab woon ndax tubaab bi façon yari noonu du daal lu wees day toppaloo xale bi dañ koy andi dañ koy bañ a bunu xataar andil ko ak liberté ci sa biir li ngay dund dana mujj léegi moom daf koy bëggal boppam léegi loolu moom lu am solo la ci lu luñ war di faral di bàyyi xel ci réew yi dem yi nga xamante ne daanaka euh, tubaab yi leneen gën a ñor mooy récupérer xale yi pour yàq leen euh, day mel ni sax loolu yi ku mel ni Sëñ Saliou loolu la jubluwoon a loolu la jubluwoon a défendre moo xale yee ko ñoroon am na benn bis sax mel na mag ñëw euh, ñëw fa ni ma damaa bëgg a ma ne ko sëñu ma jël ci lu ndigalu sëñ bi sëñu ma laa delloo léegi da ngay bàyyi kon ba ma waxtaan ci sëñ baax na waxee sëñ bi sëñ ma gone di laa daan gën di jël gën gën a jël gone bu tuuti ndax mag mu dem ba toll ci marché ba tarxiya day néew mun a jaxasoo gone yi nga xam dañuy toll ci marché ba tarbiya nga xam ne la def ñàkk saña bañu leen koy moo leen tax def waaye soxlawuñ ci dara waaye mu mel ne kon teel a jël gone yi jëflante ak ñoom façon jëflanteen boo xamante ne dana tax ñu ëpp xeymante ci lii ci leeleen tubaab yi woo loolu moom di ci dox suñu kéem kàttan baax na ci loolu nag di ci dimbalante di ci jàppalante te it nag eh, nit ñi suñu borom dafa séddale dafa séddale cër yi yow mën naa am fi mu toll nii nangam mënoo ko waaye am na ku man ba tey di gëstu ba ci kenn ku ne nu mu yare doomam sax ñu ne ko gëstante ci suñu biir boobu boo ci gisee te nga jël boobu sax jëlul bañ waaw te bañ a gëm rek jël benn bi nga xamoon rek ndax fee dégg naa fi koo xamante ni euh, daa ngaan doom ji far far mu faatu bañ bañ yóbbu ko tëdd na lépp ndax am na ay jamono suñu sàll bu ñëw ci daara ja euh, di ma wax ni ma wax jàngalekat yi na leen wax ne lu ñu lu ñu gën a mën a néewal dool yi moo ci gën ndax di dóor dafa xewi mm-hmm. am na ay jamono yi ñu ñëw ci daara ji ba dem yabal ay ndaw ñu ñëw bañ ñëwee dañ doon wër daal yëpp di leer bañ ñëwee euh, tubaax bu leen ni ma sëñ bi nee na bi moom fi mujjee gone yi biñ ko waree xet gi doon génn ci ñoom loolu jamono weesu na ko mm-hmm. nañ fexe ba gone yi di sangu di sol lu set buñ ko amut nañ ko ko wax moom mu yónnee mu yónnee lañu la ñuy sangoo ak li ñuy setee waaye bàyyi gone yi ñuy tëdd dara bat na de yooyu yëpp nag ay kii la yoo xamante ne jamono ay référence la ñu war di ko jàng te kenn ku ne di xool façon yeneen ba sa morom bu la gën lee nga ko loolu ndax am njàng nii jërul sori fi mu toll nii yow xarit bi nga jaxasoo xoolal ci moom ay qualité béréb bii boo fi ñëwee boo fi jëkk ñëw tey tey tey rek mën ngaa xool ay qualité mën nga fi jëlee ay qualité rek yóbbaale ko moo tax daanaka ñu ngi ciy góorgóorlu di jàpp ne suñu biir ci wet kooku lu ci am solo jërëjëf. koor gi ndax ñun sañ nañoo ànd ak waa Touba wala waa dëkk bi fii lañuy lañuy signalé moom sama problème la moom. sëñ bi kon li ma doon laaj ma wax ko ci kaw nee na ndax koor gi sëñ nañu ànd ak waa Touba wala waa dëkk bi laaju boppam la. wala xanaa jox imaam mu tontu. jox sëñ bi imaam ci imaam woor ma. barkeel jërëjëf. asalaamaaleykum. bala ñuy wax dara ñu di bokk taalib yi yëpp jiital ci sëriñ bi nga xam ne moo ñëw tey di ñu baaxee waxtaan wu am solo yi nga xam ne kenn ku ne jaroon na ci ñun mu la xas dem di ko jàngi ndax euh, li wax boo ko seetantalee dëgg-dëgg maanaam balay jëriñ kenn yow mi koy def lay gën a jëriñ ndax àdduna ku ami jafe-jafe daanaka boo seetloo la la ci ëpp yaa ko teg sa bopp ndax yaa am jikko yu woo xam ne dafa wut te jikko yu baax wala nga bëgg loo mënta am yooyu rek daanaka mooy indi nit mu metti àdduna waaye àdduna moom euh, ku yam ci njàngale mi sëñ bi wax sa àdduna dana teey dana yomb ci yow ndax mooy yaru ami teggin bëgg lu baax boo ko defee di ko wut doo tiit doo jàq doo gërëm kon noo sant bu baax sëñ Bassirou mi nga xam ne moo nu def lu waxtaan am solo yi Euh, euh, xam naa laaj yi yooyu moom sëñ bi koy laaj moom itam borom xam-xam la xam naa mën ngaa tontu sa bopp ndax da waxtaan daanaka moom yaakaar naa loolu euh, yéen mag ñi yàgg ci àll bi yàgg tegg dégg yaakaar naa sëñ Mourtala tontu woon na ci. tontu woon na ci ndax Xaadim Lo ci boppam nee na jottali na sëriñ bi ca Espagne mu ne ko digal naa taalibe yi fu ñu mën a nekk la ëpp ci julli ji lañu ñu tënku nañ ci tënku. ci wàllu koor kori tabaski loolu ci euh, misaal bu gàtt rek naan sëñ Murtada mu mujj ci moo yoroon mbirum taay bi ci mujjoon ci àll bi loolu mu waxoon man jàpp naa ne man si ci jàpp te it man ci loolu laa jàpp ba tax na man fu ma mën a nekk euh, la ëpp ci jullit yi nga xam ne dañoo bëgg lislaam ba tabax ay jàkka di jullee ko woor ba fekk woon seen jàkka julli fa euh, dugg fa julli bu ñu wooree nga war a mën a woor bu ñu wooree nga mën a lu ñu woori bu fekkee ni ci dëkk nga dëkk bu fekkee ne dëkkoo fi nag mbirum gan la gan nag xam nga moom ak mbiram bokk te ku dëkk waaye ñun ñi dëkk ci dëkk bi daal noonu loolu yaakaar naa mooy suñu ndigal asalaamaaleykum jërëjëf sëñ bi loolu leer na pour dellusiwaat maanaam ci wàllu yar gi nga doon wax suñ bi sànq maanaam dafa am ci dëkk bi ñi fi nekk bu fekkee nag maanaam lii nga jàngale muy ci suñ wax ko muy mu leer lu leer nañ ñu wax dëgg yàlla waaye maanaam mbir mi mooy xale yi fi nekk yow boo xëyee daanaka tubaab bi nga nga koy dénk bu dee liir yóbbu nga ko ci crèche bu tàmbalee am ñetti at tubaab bi maanaam moom lay yendool kon koo xam ne daanaka tubaab bi lay yendool ba ngoon yow boo wàccee daanaka li nga ci am mooy sang waxtaan ak moom tuuti jox ko mu lekk tëdd kooku maanaam ngir def ko jullit ak murit ah xanaa warta warta yomb de waaw léegi nag bu ko defee ci wàllu solution yi communauté bi yan lañ ci mën a jël ndax fi mu nekk nii ko anam daf mel ni immigration par rapport ak communauté yu mel nekk juif yi ñun lu bees la ci ñun yow di ñoom daanaka def nañ fi ay ay junniyaat ba mujj gi jël ñoom seen ay disposition ngir seeni doom mën a topp maanaam seenu diine ñun nag daanaka suñu immigration matugul sax maanaam cinquante ans wala euh, àggugu ci ku defee maanaam ñun yan matukaay la war a mën a jël ngir xale yi ñu mën leen ak ndax comme que yar ki moom par par l'exemple lay doon faw mu gis li ngay def te moom tubaab bi la yen doon ngoon gu koy wax ndax maanaam ñun liñ ciy jot danañ mën a raxas loolu ba def dara maanaam leneen ci moom daal duñ ci waayam ci ci wàllu pexe jërëjëf euh, sëriñ bi loolu de li ma ci gis mooy bañ a xeeb lii jataay yii dañ koo xeeb waaw jataay yii am ko si ñëw moom buñ ci xeeb dara waaw luñ mën a am ci jataay yu mel nii rek léegi mën a ko di leen di leen ci di leen ci boole waaw loolu bu ko defee nag ab tàmbali la yàlla mën naa def léegi ku ci doxee noonu te góorgóorlu ci ndimbalu yàlla mën daje fekk waaye li nga jafe-jafe moom xas lu am la moom lu am la te it ñi ngeen ko seqal li leen gën a ñor nag mooy rek dara xale waaw ñoom fi mu toll nii daanaka li leen gën a ñor mooy gone yooyu waaye mag moom dañ naan nañu ko bàyyi mu jàll waaye xale bu ñu ko def ko dee baax xale bi responsabilité la boo xamante eh, yow mi nga xamante ne yow la jaare ci yow am na lu la ci yàlla léegi sa képp kattan war nga ko xamal diineem di ko ci toqi loo man boo defee li nga mën lépp nag la jeex moom ñu jox la waaye bañ ci xam lii ñuy ñuy defe ko si ne daal ëpp na ci xam waaw ndax fi mu toll nii daje gi ñuy daje fii di waxtaan mbirum diine di delluwaat ci mbirum Sëñ Tuubaa di ko nangam nangam bu amutoon am na ñoo xamante ne bu toll dañuy sànq fi mu toll dañuy sànq ndax bu danañ gis leneen ñu jàpp loolu ñu wujj loolu moo tax lii ëpp na ci xeet te di ko jëmale gën a gën a jëmale kanam fu mu toll nag walla gisuma ci lu ko lu ko tane bu yàgg bi yàgg ni ma daan ci am incha allah ma maa ngi jégalu sax ci dolli gi ci ay kàddu waaye ni ko sëriñ bi waxee xale ci lay dellusi maanaam xale yi boo seetloo comme nii tey nii rek ñu ngi wax boobu léegi waaye ñoom ñu ngi wëndeelu maanaam kon dafa mel ni boole gi nga wax des na euh, damaa jàppoon ne xëy na boole gi doon na gën a gën a wér bu doon bu ñu amee lu mel ni jotaay yu mel nii kenn ku ne oof sa doom bu ñëwee bu dee andi nga ko mu jàng mu noppi nga oof ko mu toog ci sa wet euh, di déglu li ñuy wax donte xamu ci dara bu ko defee tam yenn saa yi buñ toogee ñoom xëy na comme ci dëkku mel ni làkk français la ñuy làkk bu bu ñu waxee wolof ba noppi kenn jël tënkal leen ci francais wala lu mu gàtt gàtt rek jër ta xeeb comme ni ko sëñ bi waxee yaakaar naa loolu moom buñ ko doon gën a gën a kii bu baax dana dana ci am solo li may wax xëy na du waaye maanaam lu ma fekkee la lu ma lu ma dund muy Marseille Euh, xale ya fa nekk tey jii bu ñu dem fenn fukki at ak juróom ñaar fukk ñaar fukk ak nangam ñooy fees bis bi ñoom ñooy njëkk a inscrire te xëy na njàngale na ni ñu ko tërale woon rek mooy dinañ wax ak ñoom wolof waaye dinañ dugg ak ñoom ci français tam ak impliqué leen maanaam boole leen ci liggéey bi ba nga xam ni euh, na yi sax ñi nga xam ne amoon nañ ñaar fukk ak ñaar fukk ak nangam juddoo fii demoon nañ ba amoon ay xaale nii nañ jël togg gi ci mag ñi maanaam seen yaay yi togg dañoo demoon ba am xaale ni léegi bu màggal amatee ñoom ñooy togg te te juddoo fii góor ñi tamit di jàmbaar demoon ba kuréel sëñ Murtala sëñ Mamor ñëw na fa ñu kuréelal ko ba tàyyi te loolu da leen di gën a soññ daal di gën a wane nii bokk nañ ci waaye fii dafay xaw a manqué ñu war cee gën a góorgóorlu bu baax ci wet googu kuréelu xale digg gu taxaw bu manqué na fi te loolu da di boole ci liggéey bi di leen impliqué tam di leen yenn saa ñu tënkal leen ci nasaraan bokk baax na ci bu di leen uuf tamit ñu toog bañ leen a bàyyi rek ñuy wëndeelu dana ci baax lool maa ngi ciy jéggalu salaamaaleykum wa rahmatulah. ma li ma ciy fàtte woon tamit tamit lu am solo xëy na maanaam mooy cadre te cadre bi damay jàpp ne suñu Murtala bi ñuy jënd ay kër maanaam li mu ci jublu woon mo ñu jàngal xale yar leen. ndax ñun mag ñi juddoo Sénégal màggee fa yaroo fa am na lu ñu xam ci taalibe gi waaye kër yi xale yi dañ ko waroon a gën a jox waaye ñun dañ koo gën a def suñu programme bàyyi programme xale yi loolu tam war nañ cee gën a xalaat bu baax muy fii muy taberni muy marché gi ñu bëgg a jënd fexe tam ba am institut euh, boo xam ni institut Mouride lay doon fii en France nga xamante ni dinañ fi mën a jàngale xale yi bu vacance ñëwee li suñ maamul wax bu leen tubaab bi téye xëy na ba vacance jot ñu mën leen yóbbu foofa waaye li fekk amuñu ko dinañ am ay coono yoo xamante ni du yomb saafara kon loolu tam ñuy xalaat di dox di ci jëm ta ki ci taxaw xëy na mooy fédération nationale bi ñu gën koo dooleel gën a xalaat jëmale ci bu ko defee xëy na yooyu yëpp dinañ ko mën a dem ba bis am école juif yi mu wax dañoo am seen école euh, ay école ñu di ko état bi dem ba di ko financé arab yi jàkka joo dem lu mu tuut tuut am na école euh, kon loolu yëpp tam ñun ñu war a dox xalaat jëm ci yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay siyaare bu wér man de dama noonu laajte rek ci baatu ndigal nga xam ne moo tënk yoonu murit murit moom daanaka ndigal bu kat teggee ko rek doonatul murit te yaakaar naa ne ñun ngërëm lu ñuy sàkku muy ngërëmal yàlla ñu mën ko amee ci ñu mën ko tuddee ngërëmal Serigne Touba te nga xam ne ci ndigal lañ koy amee baatu ndigal boobu laa doon laajte nan lañ koy dunde jërëjëf euh, am na benn daayira bu jóge woon Gàmbi ñëw ci suñu waaye bañ ko ne dangaa digle woon naa dañ leen salal digle wu ma dara de jot li ndigal yàlla day laa leen def waaye digal digloo ma dara ci saa si la daal di demante baatu ni digloo ma moom ndigal yàlla nga xam ne kon noonu ko suñu laa daan gàttale hmm. topp ndigal yàlla yi bàyyi tere loolu yi mooy baatu bi nga xamante ne suñu tubaab digal na ko ñëpp bu hmm. ne da ci desaan nag mooy bu ndigal lu yeesaat nag ni ñu a hmm. mooy ndigal yi yeesaat waaye ndigal nga xamante ne moo moo fonde mooy ndigal yàlla ni ko suñu mbooloo am waxee daal def yi gàtt asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi ñoo ngi lay ziar di feddali sunu bëgg gunu bëgg sëriñ Tuubaa ci taxawaay bi nga ci taxaw ñu di la ko feddali ak sopp gu ñu sopp lool ngir yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa di la ñaanal suñu borom di ngay liggéey ci lislaam te di ko liggéeyal sëriñ Tuubaa yàlla noonu ci yàlla gën a taxaw te yàlla na ko bokk barke borom Tuubaa noonu sunu laaj ñu ngi koy jëme ci dangay ñëw ci dëkk bi yàlla dogal jigéen li ci ëpp bu ñu ñëwee dañu lay tàllal loxo léeg-léeg suñ la ko defee nga gàntu soo melee ni ko gàntu maanaam ña ngay toogal sax ci ñoom du leen gënal ndax dañuy wax ne da nga leen ñàkk ay teggin bañ mer nag moom doomu aadama ba dajeek meram suñu borom lañuy laaj loolu nu mu demee beneen bi it mooy maanaam ñi nga xam ne dañuy jóg di xas lislaam dañu koy mel mel yu ne ku lu tëb jullit te xamut loolu it su la joxee loxo boo ko joxut loxo euh, mu daldi lay ragal ba bu ëllëgee mën naa am gàllankoor ci moom ci bu nit bëggee wax ak moom ne ko lislaam maanaam dafa nangamut lu yooyu yaar ñu ci di def ba mën a maslaha ak kee ba bu waxee moom mën ko dugal ci lislaam ak nooy mën a fexe itam ba teer maanaam suñu borom li mu la tere ba kenn du la ko tax a def wasalaamaaleykum jërëjëf jafe-jafe la mooy ñoo xam ñu bari ñu koy dund ci réew yi ñuy nekk ndax euh, nit moom bi mu xasee ba tëddee nekk am réewam ba dugg ci meneen réew rek jafe-jafe tam dana am mm-hmm. bu fekkee ñooñu di dund dara euh, saxal ko imposé ko ngir mucc ci dina jafe lool mm-hmm. waaye nag teewul gëm-gëm dafa foor diine it dafa foor mm-hmm. te sëriñ bi ñu wax mooy xultu man talaba ridwan lu wara bi suxtiral bi fa hum doon moom dafa wax ne sàkku ngërëmul nit ci luy naqar yàlla moom ab dafa koy ab dafa koy def moo tax boo defee nag léegi da ngay fexee nag ba téye sa diine ba noppi mer ma nga mañ war a mer ci nangam nga nga di ko moytu loolu moom ay masaale duñ yoo xam waaye da ngay ba bu ñuy mer dina jëm na leer ba noppi na nga ko làq ba noppi da koy denc ba noppi ba noppi nag di seet nañ bañ a mer rek booy fi waaye ginnaaw boo làqee si diine ba mu leer a tàmbalee di seet nag ñuy nu ñuy ñàkk a meree mbaa nangam waaye fexeel ba mer bi moom moom bu mu bu mu kontaanee ak dinañ bokk. waaw moom nit ku ne ak système ba mu cee doxee góorgóorlu ko cee wax war naa maa nekk. war naa maa nga lax si diine ne ba noppi nga seet nag ñoo maslaa ak nit ñi waaye dina jëm na ko denc la daa mel ñaari la boole de. ñaari la boole suñ Kara Samb maa ngi jégalu bu baax ginnaaw bi ñu ziare kilifa bu baax a baax ak mbokk taalibe yi yëpp di leen ndokkeel ci weeru koor wi te ñaan suñu boroom def ñu àggale ko ci jàmm ak salaam te li ci yàlla dégg lépp ci ay barke ak i xéewal ak ci gore ci sawara ak yépp lépp ñu am ko. sama plaque moom day génn tambi tuuti waaye dañ ma koy jéggal rek ndax suñ bay jaxate day wax waxtaanee waxtaane yàllaa ki gaayam cër bu nit masa am xam na xamal ni kat ca la juddoo yow murit bi xamal te ku ne xam na ni sëriñ Sonia bu ci juróomi fan ci weeru koor wi la la màggalam te sëriñ Basiru xel ko moom dama koy faral di dégg ci ay waxam mu ni nekkoon naag moom wala boog jaar na ca moom wala lum ci mën a demee rek te ñu bëggoon nag jariñu wala boog dégg dara ci dunduk Serigne Souhaïbou bu lu mu gàtt gàtt rek loo nga xamante ni danañ ko mën a yóbbuloo danañ ci mën a roy man koo dégg mu doon bind ci ñun loolu rek moo doon laaj bi ñu ngi jégalu bu baax. jërëjëf dafa mel ni laaj bi nga laaj sax. dafa sesoo lool ak lii sëñ Mbacke bi doon laaj ndax maanaam sëñ changé ko yërmaande doom ab yamukaay la ci waaye nag noonu la tare nag ci wàllu diin bu gën duggee ci wàllu diin da ngay jàpp ne kii moo gën a tax ci àdduna te bu jàllee yërmaande xuma ko compliqué na waaye daan bind jigéen ñi bataaxal maa ngi koy wax léegi rek benn bataaxal la bind ci loxoom nii yónnee ko njaboot jigéen ñi boppam ñi ngir kaddu seen kaddu bu yëkkati ko mu dégg. loolu daf koy da koy naqari day bëgg jigéen di suufeel kàddu mu bind leen bataaxel ni leen damaa bëgg ngeen xam ne jege nit ci ak mbokk mënu la weesu diw ma jur wala maa jur diw wala diw te yonente yi gën ci yonente am na ci koo xam ne doomam dem na sawar am na ci koo xam ne bàyyam dem na sawar am na ci koo xam ne soxnaam dem na sawar te dara tegu leen ko lu weesu ñàkk a topp ndigal ak ñàkk bàyyi ak su ma leen dee wax ngeen ne ajana moomu ko moom moomu su ma ko moomoon kenn ci yéen du ca dugg waaye ka ko moom la mu wax ne ku ko def mu tàpp mu dugal la ci loolu laa xam yéen leen ko di leen ko digal sawaram moomu ma su ma ko moomoon kenn ci yéen du ca dugg dama koy fay sax waaye yàlla ma ko moom la mu wax ne ku ko def mu tàbbal la ci loolu laa xam di ko moytu di leen ko moytu loolu ku def sa bopp ku def yaa caag lii Serigne Sall moo ko bindoon muy bataaxal bu mu bind bare jigéen ñi ñu toog jàngal leen bu ñu dégg loolu kon la nag ci yërmande ak fonk ko la ak ku leer mm. waaye nag bu dina ñëw xanaa sëñ bi waaw xaaral ñu àggale boobu rek ci sëñ suñu wax nag ci wàllu tarbiya sëñ bi foofu it euh, ah, maanaam ci wàllu tarbiya si sëñ maanaam nu mu fi doon dox ak taalibe yi ña fa nekkoon di jàng ak yooyu ndax dina leen digal ci saa si te tere waaw moom dafa bindoon ab téere boo xam ne xuratu la ay ndatu jamono yam koy bind yàgg na booba damay doog a ñëw ci daara ci ay 1969 70 69 70 jamono yooyu dañ dañ daan indi jëmmi téere boobu ci daara ci ku ci jàng ñaari isib alxuraan ñu arrêté sa njàng foofu nga tàmbulee ci bopp laa ilaha illallah yàlla suñu borom bi moom dañu koy bindal ci ëllëg nga koy mokkal di tare moom rek moo di buur ngërëm bi digal ko kenn lu ko neex mu am lu ko neexul du am xam-xamu boppam sañ-sañu boppam kàttanu boppam. noonu lañ koy toppee ba jàng wo julli juróom mu wax ni mu gën a fare ci li yàlla li yàlla yónni yonent bi sama sama léegi nag nooy xam nga ba ne bu tollee ko a jàng nooy boo jàpp ci say wóom li ngay wax boo sujjootee li ngay wax booy taayee li ngay wax jàngale yarub jàkk yarub jàkk maa ngi ciy fàttaliku loo xam ne jamono boobu laa ko mokk la hmm. ba mooy doon gën a ko tuuti ñu biral na ko ku nekk ci jàkka du xoolee xoolee bu bari day lam sax rek ku nekk ci jàkka du tallal ay tànkam du foq ay baaraamam du leewi ko du wokkutu du teeñu du rey aw teeñ du ko seet du fo du ree du rëddantu du tombantu du cakk-cakk li bant day tudd yàlla ndànk waram yar ni cell su ko mënul génn lii laa ko ma ba li li gën a mën a feeñal aw tàngooram moom sëñ bi mooy waxtu julli jot mu seen ngay def daal lu du julli si mm-hmm. nii mu waxee ci ci téere bi ni julli war na ñëpp mu kàll la ku ko bàyyi te tay ko te tëlewu ko saay-saay la boobu te motu seer ci dara te bëggu tuba bitee sawar la jëm noonu mu wax kër noonu dañ mm-hmm. moom ba ci mu ne ma kooku ma ne ko ma ko ci na nga jël làmp bi te na nga dem ba tiim pax ma te boo noppee na nga sew te jàpp poso seeram nañ baax kon sëñ Ablaye ñu jox la nga laaj ñu dellu si waat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi nuyu mbooloo mépp gannaaw ma nuyu sëriñ ba noppi di siyaar bu baax di siyaar mbooloo ci weeru tedd bi nga xam ne moom dañuy dugg di ci ay jaamu yàlla ko yàlla nangul te ful ko ngeen jëful nangu ko ngeen nangu ak Sayyidina Muhammad alayhi salaatu euh, man de xaw na maa yéex ñëw waaye lii may laaj. lii may laaj dafay laaj boo xam ne daf maa ñor ndax li tax mu ñor moom moo di ñun nga xam ne dañoo nekk fii tey dox léeg-léeg ci diine ñu ne koy jiiñ doonte xamuñ ci dara dañu dem ba léegi mu mel ni discours yi dafa soppiku li tax ma fàttaliku ko mooy li nga delloo si léegi yoon wi dara foo diwu ko lu dul ndigalul yàlla ak yonent bi sëñ Bamba lu rek la dig yow doo doo ñu fi bàyyi moom ñaan digle waaye léegi dañoo dem ba mu mel ni discours yi dafa soppi ko lu bari ba ñu bari buñ bokk buñ toogee taalibe yi liñ leen di wax di doon ndigalu yàlla dootu doon sëriñ bi te am ci ñoo xam ne loolu lañ jàpp ne loolu muy dëkk ndax jàpp nañ ni ki toog di wax ginnaaw ci askan wi la bokk lu mu wax loola war a si ko mën a loolu mbàkke doon loo xam ne bëggoon naa ci ak leeral tuuti rek ba xam ndax dañu war a delluwaat ci njàngale mag ñu nekkoon ak si Ahmadul Xadim nit ki ñu yaroo ci këram ci këram si Abdou Khadir ku mel ni man wala ku yaroo ci këram si Abdou Lahad daan gis nañ daan diglee muy lii nga wax lañ daan diglee muy li yàlla digle ak yéen bi digle tey nag mu mel ni discours yi dafa tàmbalee sensé boobu taalibe boo xam ne bii bëgg na maanaam conservé ak taalibeem ba du yàqu naka la mën a dundee ci dundee wu mel noonu sëñ bi jërëjëf Aliou ku ñëw ni dafa bëgg a jébbalu waaye nag dafa bari lu ko jaaxal ma mu ne ma la ca jëkk mooy dafa am ñoo xam ne dañoo wax ni jébbalu dafa araam kenn waratu jébbalu ci ko loolu seenu déggéen la ñoom waaye ahlu tasawuf jëblu gi ñuy wax jaayante ci jublu te jaayante dafa sax ci al mu'minaatu yubaayi'anaka la wax ala an laa yushrikna jëbbu la muy tekki mooy jaayante fas yéenee jëf ndigal yàlla da ngay seet ku la doy ci diine nga fas yéenee fasanteeg moom gën a jëf ndigal yàlla ma ne ko jaayante boobu ñu doon jaayante ngeen te sama son ci isa jaakar mun naa toy bàyyi ne ko xanaa allah yusrika na billahi shay'a jaayante yow ci nu duñ booleete yàlla ak dara wala yasriq na duñ sàcc wala yasnii na aw njaaloo wala yaqtul na awlaadahunna duñ rayet seen doom wala yaatina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna loolu lañ koy firee mooy nit kuy sëy ci biir ba noppi fexe ba indil borom kër bi doom boo xam ne borom kër bi jur loolu moom wala yaatina dañuy waat ci yàlla waatal waatal ci kanam yonte bi ni duñ ko defati wala si nekk fi maaroof mooy ci lu baax lu leen digal mu doon maaroof yonte bi maaroof lay digal toujours mm-hmm. waaye noonu yi lay waxee ngir ëllëg léegi jaayante yëpp loolu ko taxaw na man ne ko nag léegi kon ña wax ne jébul dafa am ñooñu seen déggin la waaye déggin bii lañ am ñun ñu dal tasawuf muy muy jaayante nit ki ngir fas yéene jëf ndigal yàlla bàyyi tere mun ma boobu jàll na léegi ba ca leen rawaan yi fi naan nangam sëriñ si di sëriñ si laa man loolu bu mu la jaaxal boo dugg ci yoonu murid yi na nga xam ne ci yoonu sëriñ Tuubaa ngay dugg benn sëriñ fi nekk muy sëriñ ñëpp ay jawriñ li jawriñ nag yaay tànn jawriñ mën naa doon jëriñ joo xamante ni dalay woo ci di la jox ay masala bàyyi la nga dem mën naa doon jëriñ joo xam ne dalay jàng lu xasida mën naa doon jëriñ joo xam ne day ànd ak yow ngeen tëgg fecc mën naa doon jëriñ joo xam ne maanaam jëriñ dina dal waaye nag da nga xam ne jëm yoon suñu tubaab ci nga bëgg a dugg na nga tànn si jëriñ bu fekkee ne nga xool jëriñ joo tànn mu ànd ak yow ngeen di taxawaat léegi dootay baax yàqu la waaye waaye yoon yoon suñu tubaab ku ñu fii jëpp ne jëwriñ dañ ci ciblé te jëwriñ it la lay war waru garam ci ab tool mooy na la sas sas boppam di liggéey ngay liggéey ma ne ko yow xamal sas wi nga nekk ci loolu yi mooy sa warugar si diggante jullit mu ne ma léegi lan moo war ci suma ma ma léegi waaw dem na ba ba ba ni ma léegi su ma jëbla ci yow fi mu toll nii lan moo war sama diggante man bi li la war sama diggante sa diggante ak man mooy lépp loo xam ni yoonu yàlla la mbaa ma di ko liggéey mu jëm ci yàlla naa la ci woo bu dee sama mbiri bopp nag sama taw ko bopp mooy kene mbaa sama nangam bopp kooku sama mbiri bopp seen nekk si seen nekk waaye li wér daal mooy li ma njëkk a wax muy yoon yëpp sëriñ Tuubaa mooy sëriñ bi. ñi jël si ay jawriñ bi. yaa ngi tànn jawriñ nag waaye nag na nga xam fi nga jëm ba noppi. Hmm. doo ko jóg waaw nit ki bu xamee mu jëm. bu toppee ci ginnaaw kuy dox mu topp ci ginnaaw bu doxul mu signalé ko jàll. Sadio <laughs> Kane loolu dëgg leer na damaa bëggoon xam rek taalibe bi nga xam ne daa bëgg a jébbalu ne daa bëgg a ut sëriñ bu mat sëriñ moom imtixaan moom muy def sëriñ bi nan la koy defee ba xam ne kii mat na sëriñ. nga sëriñ sëriñ bi ci boppam suñu mag bi nit ku laajoon ne ko nit ku jébbalu ci sëriñ ba mujj mu jës sëriñ bu ko gën a doy ci bii mu nekkoon ndax mën na fa bàyyi bii dem jébbalu ci bee. loolu la ci biir mañ ma sëñ bi ne ko bala ma la cee tontu dama lay leeral la ma ne xeet la dafa am cheikhu taalim ak cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya cheikhu dafa am ñett yu ñu ci moom mooy sëriñ boo xam ne jàngale lay def am ba ci jëkk mooy na am xam-xam bu leer bu am cëslaay ci alxuraan ak sunna ñaareel ba na am ci lan ñoo ko mën a leer boo xam du wax bu noppi ngay naatal boo xam ne li la jublu lan def ñetteel ba na am ci dama ko tënk rek naa am ci maante lu toll ni lu mu xamul ne xamu nit lii bu dajee ci sëriñ bi jàngale mati na ko léegi nag sëriñ buy tarbiya léegi jëkk ngay ñëw di ko tase si ne boo xoolee yow yaay xool ay situation sëñ la doon boo xam si daal dana xam jamono yàqu-yàqu jamono dina ko xam xam koy défendre mooy suñu saal bi fi nekkee doo ko naatale waaw naka noonu nag fi mu toll boo ko boo ko bëggee wëree noonu doo lay demee léegi bu fekkee da ngay dem pour mu teg ci aw yoon léegi yaa ci bala ngaa dem ko ngay ngay xool noonu léegi na xam jamono na xam nit ñi xeeti nit ñi qualité nit ñi ndax nit. dafa bëri ay xeet loolu daañu naan ne jamono léegi yi mu la ñuy tuddee psychologie maanaam jëmmi xeetu nit ñi. muy hmm. boo toogee nit ñi ban xeetu nit ndax dafa rëy ndax dafa iñaan ndax day njëstal ndax daa bëgg àddina ndax daa mooy naan baax loolu dafa am ci nit ñu teel koo xam ci nit ñi. Hmm. waaw muy muy sëriñ bi loolu la ko yàlla defaloon muy Sëriñ Tuubaa ak njabootam ngi di tarbiya ñoom ñëpp yàlla dina defal ñaar qualité nit dañ koy xam loolu ak xam yoon ba ñuy jaar pour defal ko léegi hmm. waaye test bi moom mooy xool ci moom jikko yooyu jikko yi mu doon seexum rab bi ndax léegi bu dul nga ñëw di ko testé maanaam nga testé ñoom jikko ña jëkkoon a jaar ci moom nga xam fu ñu jaar fu mu leen jaar mm. nga xam ne baax na buñ jàll tey xam naa sëñ bi léegi xam naa nag pour euh, dolliwaat benn laaj rek ndax ci wàllu tarbiya ba tey kon ku newoon nañu sëñ bi am na ko fu ma sonn seet si njaareem ne ko Mbàkke dama bëgg nga defar moom mun na ko defar de taqoo la laaj yàgg mun na ko bal bal fàlli de defar naa ko léegi gannaaw comme ñun fi ñu nekk daa xaw a sori yenn saa yi duñu gis ay maanaam ñoo xam ne danañu taqoo ak ñoom que amul beneen bunt boo xam ne sëñ bi danañ ci mën a jaar lu demee nag euh, mbindum sëñ bi ak yooyu amu ci yoo xam ne xëy na buñ ci taal bi saxee xëy na dana mën a defar bisimilah sëñ bi loolu loolu day mel ni moom la sëñ bi doon tontu ci il lam tulaaqi muslihan fal taktafi ma bihi nasa xiyaaru salafi boo dajee woo koo xam boo dajee wut ak ku la mën a teg ci aw yoon na nga doy loolu lañ bindoon lañ bindoon nag mooy lañ la doon digal ci ay digal ak i tere ngay di def ndigal di bàyyi tere la ca des mooy xës di sëñ Tuubaa yi nga taxaw na léegi ma bihi nasa xiyaaru salafi loolu lépp la ci xës di sax sëñ bi dañuy def bootum tabee ndax day wax ne kitaabati faaxa siyooxa tarbiya wa kulla xayr da nga gis ni kuy jàng xasida bu mu jàng mu am ci ay jëkko ak defar loo xam ni mënoon naa tax boog seexu bi ba gën a màgg te loolu nekk na. Ah. waaw moo tax xasida mooy tal bi suñ ci waa dénkaat. yaa ngi ñu jàll wala. maa ngi jégalu eh, ndax man de dama fekkee jotaayu Serigne Saliou yu bëri Serigne Saliou wax ak man tamit guddi lu bëri. mooy mu mel ni mus naa wax sax ne yow de mbaa bokkoo ci ji jàpp ne Serigne Touba daa faatu waaw maanaam daf ñoo yar ci ne Serigne Touba mosut a jóg jamono waaw dimbali ñu waat ci wàllu euh, ci xeet goo xam ne xam nañ ne kenn ki kepp la du mos a jóg jamono moo fi nekk faw kon. Euh, nii ñu ñuy ñuy dundee sëriñ bi nga xam ne xam nañ ne jugu fi waaw dañuy laajte nan nan biñ ko gisatul ci suñuy gët moom sëriñ Saliou naka naka lañ naka lañ koy dundee ba nga xam ne duñu juwoo mukk ak moom loolu lañ doon laaj day mel ni soriwut ak li ma tontu woon ngir ngir li nga wax ni sëriñ bi mbootum tarbiyaam daf ko def ci xasida yi. sëñ Saliou xasida yooyu moom la bàyyoon na doom ndax jaxasoo ga ci war bu fekkee daanaka def bu yàgg yéen mu na mën a ko te gone yi sëñ bi bu fa gëjoon lu mat nangami at bu ñëwee nañ meloon dara du ci soppi mu mel ni kon mbootum tarbiya gi dafa nekk ci xasida yi mu jaam loolu daan wax ne na ngeen ko fonk ngir day dàq seetaan. daanaka daanaka yar yar yar yar yar yarub murid daal xam naa dara tënawu ci fonk xasida ak fonk jotaay yi kenn ku ne nag di di roy ci sa morom lu mu la lu mu la ndax sëriñ bi dañu woon léegi boo gisul seexul murid bi te gis àndandoo wutal àndandoo àndandoo boobu nag mooy koo xamante ni léegi dangay jël ci moom muy jël ci yow. waaw mooy wa waru faqatu nu wax ne ixwaanun lahum himamun àndandoo te mbokk yoo xamante ni dañoo am ittee jutale ji nga am boo fee ngeen ci tarkalla daañu kuy dolli asalaamaaleykum nuy jégal bu baax ci kàddu yi dina dina moom benn question rek maanaam xasida bi ñu wax aslam tahlil la lu bëggoon xam ndax si bi ma ko bind wala ko Alsane Sy rek moom mooy loolu kon daan jox sëñ mu tontu rek ci laaj bi mbokk mi doon laaj da doon laaj ndax xasida asmaam taxlil ndax sëñ bee ko bind wala dañ ko ko dañ ko koy askanale rek asmaa taalil de dinaa gis xam nga moom du ak xasida léegi day mel ni aaya yi alxuraan yi wax ci wàllu tawhid moom lañ dajale tuddee ko asmaa taalil eh, léegi dinañ ko dugal ci biir xasida yi waaye lu leer nañu amoo ci li ma gën a jot daal mooy kenn nga fa dajale ko si waaw. Ah.